moo ne yónni ci yow ne bis bi daf ko fas yéene ànd ak yow at mu ne nii rek la koy defee moo war mu indi cent paquet boisson bii cent la ndox mi deux cent paquet la ngir ànd ak yow ci bis bi barki démb la ànd ak soxna Bali mi nga xam ne bi ma ñëw ca kër doyoon na sëkk waaye dane sëriñ Basiiru day kenn ci man maa ngi moom ñoo bokkoon benn daara ca kokki ñooy ay wëllëre ànd ànd bu rafet jaxasoo jaxasoo bu rafet ba barki démb bu yàggul doom ji ma mujjee am ki ma ko tuddee Serigne Bassirou Mbacke xaari aw ba miila la Serigne Cheikh Lo Diop kokki mu ne jàpp nga ko lool fonk nga ko lool yaa ngi koy taxaw ci biir yaa ngi koy taxaw ci bit moo waral nee na bis bii mu fas yéene ci ànd ak yow ba mu jeex tàkk ndax amul sa fay. mu ne yëg na ne jàpp nga ko yëg na ne yaa ngi koy taxaw yëg na ne yaa ngi koy ñaanal waaye nee na yëg na ne yaa ngi koy dimbali waaye nee na mu naw la lool fonk la lool waaye doyoon na sëkk bi mu ànd ak soxna Bali indi teraanga yi nga xam ne mooy teraangay fondation soxna Bali Muntaxa ndax mooy secrétaire général fondation soxna Bali Muntaxa mooy chef de village Kokki daaray Kokki waaye kon bu ñëwee wëlbatiku jëfaat jëf ju rëy ji deux cent paquetu ndox ak cent paquetu boisson moo lay seereel ne moom sa cofeel ci moom ak sa bëgg ci yow moo tax nee na amul sa fay kon Serigne Cheikh Lo Diop kokki nee na moo ngi lay sant moo ngi lay gërëm moo ngi ànd ak yow bis bi ba mu jeex tàkk ci daraje Cheikh Mouhamadou Lamine Baara nee na nga ñaanal ko bu baax ba ren li ma mën bu déwénee mu mën lu ko ëpp fas yéene ànd rek ci bis bi nee na moo ngi lay sant moo ngi lay gërëm waaye nee na lépp nag soxna Bali Muntaqa la nee na lépp cheikh mouhamadul muntaxa la ndax yow gis nga ni nga def sëñ muntaxa gis na ni nga jàppee soxna baali muntaxa gis na ni nga taxawoo soxna baali ak ni nga koy défendre moo tax moom nee na amul ci yow sago ndax barki démb bi muy jël doomam di dina ko tuddee te yëgoo ko ca saasa la la ko sëriñ ma moor maamun loo gaydel wax waaye ca saasa ku ne gis nañ ñu nga ñugee kokki kon nee na moo ngi lay sant moo ngi lay gërëm sëriñ cheikh loo jom kokki moo ma yónni woon ci yow teraanga jaa ngi nii mbàkke teraanga ak poté yam dees koy dees koy weer dëgg laa daxa sayit te li tax ma jël nag kii jëf nag dara génn soxna Bali soxna Bali Muntaxa jërëjëfati sa jëf daj na àdduna de te akal yi li muy bari lool aka doon taalib bi sëñ Bamba ak si am solo li nga jëf tabaaraka jëfati ko sa digganteeg Sëriñ Basiru mii nga xam ne wane wanewul boppam de Seex Mamadu Lamin Baara rek lay wane bis bi Seex Mamadu Lamin Baara te ku wane Seex Mamadu Lamin Baara wane nga sëñ Tuubaa ndax doomi sëñ Bamba yi boo leen bëgg a mokkal koo jàngal koo mokkal mokkal nga ñëpp boo jàngee kenn rek mokkal nga ñëpp kon Serigne Cheikh Diop kokki tabarkalla yàlla boole leen ci alxuraan ah, yàlla boole leen ci jikko yàlla boole leen ci Sëñ Tuubaa mm-hmm. kon tabarkalla lii mu def du ay wax jëf la mii ndox ak tabarkalla ak yi feeñ ak li nëbbu nañ ko gërëmee soxna Bali Muntaxa soxna Bali mi nga xam ne tabarkalla boo ko séenee muy dem bu laaj ci fu mu jëm sëñ sëñ Muntaxa lay waaje moom lay wàlle waaye Mbàkke yow ku fi ñëw tabarkalla da lay jéem a fay waaye yow ku mën laa fay waaye ñu bàyyi la ak sa maam ju baax la ki ngay liggéeyal ak ki ngay wane mu seex moom lan baara boo tabarkalla di nga xam ni am na pay yàlla na la daal lu gën a fay ci barke Seexul Xadim nee na moo ngi sant bu baax Serigne Cheikh Diop gërëm nee na moo ngi koy gërëm li mu def. nee na Cheikh Diop lii nga def. lii mu def. lii mu def. du guleet du guleet de. mën naa ni depuis journée bi biñ ko tàmbalee. nee na mën na wax ne depuis journée bi biñ ko tàng tàmbalee ba néegi ni nii lay def Serigne Cheikh Diop loo kokki nii ngay def. bu màggalee. bu màggalee. nii ngay def. bu tabaskee. bu tabaskee. mu taxaw taxawaay bu mel nii. taxawaay bu mel nii. doyoon nee na doyoon na rek. li sa waajur wi def barki démb soxna Baali Muntaxa muy soxna Baali Muntaxa di sunu kilifa di kilifaam di sunu waajur di waajuram di xaritam di xaritam teraangaam yi nee na sëñ Cheikh sa teraanga yii mënoon naa dugg foofu mënoon naa dugg foofu rek ndax soxna Baali bàyyiwul dara te mooy sa ndey mooy sa bàjjan di sa baay di sa sëriñ di sa wëllëre kon sëñ Cheikh nee na moo ngi lay sant. gërëm di gërëm. di ñaan yàlla di ñaan yàlla. nga dund ba Basiiru ba Basiiru turandoom. di ko fay di ko fay. nee na xolam sedd na de. moom nee na moom. nit ku baax nit ku baax nga sëñ Cheikh. nit ku yaru nit ku yaru. ku fees dell nag ku fees dell nag. ci côté yëpp ci côté yëpp. ba boole koog ba boole koog nag. ba pare boole koog ba pare boole koog. dal dal. dëgg la de yaru lool. ami teggin ami teggin. xàmmee xàmmee. ràññee ràññee. bëgg lu baax. kon Cheikh Diop Lô Koki yal na la yàlla gën a jàppale gën laa sàmm gën laa taxaw ba li nga yéene ba li nga yéene liggéeyal Serigne Mountakha liggéeyal Serigne Mountakha nga def ko nga def ko na nga ko bëggee ndax sa taxawaay nee na sa taxawaay ci kër Serigne Mountakha ci kër Serigne Mountakha rafet na lool Serigne Mountakha nag Serigne Mountakha nag jëmm la joo xam jëmm la joo xam ne ku nekk ci keppaaram ku nekk ci keppaaram da ngay dox de ba jógee rek ndax ba mu jógee rek la dëgmal lim dëgmal gestuwul gestuwul xool ca kanamam xool ca kanamam ba yàlla def ba yàlla def mu doon Serigne Touba tey kon kuy ab taalibeem tey sa doxin sa doxin mooy dëgmal Serigne Touba rek bëgg ko bëgg ko tàmbalee ci moom yem ci moom kon Cheikh kon Serigne Cheikh Lo moo ngi lay sant ci turu président ci turu président de président de l' organisation comité d' organisation comité d' organisation Serigne Abdoul Khadr ci turu Serigne Mame Cheikh ci turu Serigne Mame turu Serigne Babacar Cissé ci turu Serigne Babacar Cissé. ak turu président comité d' bi yëpp ak sunuy doom sunuy rakk sunuy rakk. sunuy jarbaat sunuy jarbaat. Cheikh a ngi lay sant ñëpp a kon ñu xool direct. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production. ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi. national international.